doon nelaw rek di wax mais sama xol bi daa sedd ni ngeen may gisee nii sama xol bi daa sedd président Bassirou Diomaye Faye laa bëgg a waxal euh, yow président xalaa yow gaa ñu daan solal président def ko ba mu nooy nepp suñ demee jàkkaarloog tubaab bi di raay yow gaa ngi dañ la ko joxul wala dañ la koo jox nga sànni ko fa fële yóbbu say loxo africain soo demee di dëggal jubal leeral rek di jaar ci digg bi nii yaa courage kay hmm? yow sa discours bi démb lan la yow yii dëgg lan la yow yéen yéen waaye yéen lan moo tax ah yi nit nakate doo ko xam ne waaye yéen ñun ñoo am président kay kii moo am fulla kii mooy africain ba pare man man li ma metti wala li ma neex sax laay wax président bi moom suy wax moom man français jomaay dama koy dégg nii clairement te du am benn problème ah ndax moom africain la te bañu ko eh, président jomaay juufa njaare merci beaucoup yow yow ajaaraama Les valeurs que nous avons juré de défendre sont piétinées dans plusieurs régions du globe. Que l'on soit à Gaza, à Tel Aviv, à Dakar ou ailleurs, chaque être humain est porteur de cette égale dignité, une dignité qui transcende les frontières les cultures et les appartenances religieuses. C'est notre devoir à tous de veiller à ce que cette dignité soit protégée et respectée pour chaque être humain sans exception. Nabi Ce devoir est l'essence même des Nations Unies. Pourtant, nous constatons chaque jour que le droit international, ciment de la paix mondiale, est souvent violé des résolutions adoptées par cette Assemblée sont ignorées. En tolérant ces violences répétées, nous foulons au pied les principes de la Charte des Nations Unies et sapons les fondements même de cette maison de la paix. Jamais les fondements des Nations Unies n'ont autant vacillé qu'en ces temps de violence et de peur et d'incertitude. Si nous voulons éloigner le spectre de la guerre, et œuvrer à l'avènement d'un monde meilleur, alors il est temps de changer les paradigmes. Il est temps de remettre l'humain au centre de l'agenda international, comme nous y invite le thème de cette session. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nous nous ne voulons plus fermer les yeux sur la tragédie qui se déroule dans le Sahel. Des groupes terroristes sèment la terreur, pillent, tue les populations civiles innocentes. Cette région autrefois stable est désormais en proie à une violence quotidienne, tandis que les Nations Unies, particulièrement le Conseil de sécurité, restent trop souvent inertes. De même, nous ne pouvons pas accepter que le Sahel devienne le théâtre de rivalités de puissances étrangères dont les affrontements ne font qu'aggraver la déstabilisation de la région. <laughs> macha allah sëñ Diomaye waaw Lat Diop mi ngi yëg yi yéen division investigation criminelle nay Lat Diop di jot ci lii def leen ko live yu baax muy seetaan la xew ci ONU ak Nations Unies la xew fële ci Amérique mu koy xool comme ko complexe la dem ba ñuy taxee naan ay dof la ñu ne rabotel Diomaye <laughs> mbokk yi man fii laa waxoon lii waaye bàyyi naa ko jomaay am na charisme <laughs> yow am président nga xam ne bu taxaw bay wax ñëpp respecté ko ci àddina bi Xi Jinping barki dem mooy njaay rek fële ci siin léegi ko des daje naag Macron daje naag Joe Biden Poutine des macha allah sëñ jomaay ci discours bi ak taxawaay bi Sénégal day soppeeku de waaye nag Birima yow lañ nataal yi dégg seen complexe gi ngeen doon yàgg Kader ma ci seen tiif Kader nee na gaal taxawee mu yab waa këram yabal bu la neexee dem de. laa ilaha illallah alhamdulillah gars yi wax leen alhamdulillah je merci. Naby Vision. merci beaucoup notre cher président son excellence président Bassirou Diomaye Diakhar Faye gars yi sant yàlla war na de <laughs> waaw xam nga mbir boo dee xeex. di xeex ñu naan la déedéet du fii ngay xeex dëgër bopp ne fii la nga xëy suba ba yàlla sa borom wan àddina sépp nela yaa ngi ci dëgg fi nga doon xeex fii la waaye sëñ bi boo amee xel tuuti war nga sant yàlla vous les patriotes yéen ñëpp war ngeen a wax alhamdulillah tey jii lan lañ leen leen wax keroog ba seyd Seydina Ousmane Sonko tànnee son excellence président ba Bassirou jomaay Faye ne kii laa wóolu ndax mooy man maay moom lan lañ leen doon wax bis bu fu taxawé ci kanamu Nations Unies bu jàkkaarloog ak ñom Joe Biden bu jàkkaarloog ay ñom Emmanuel Macron ak ay xuma kana kan kan, kan lan la fay wax gaay deglu ngeen tay ji lan la son excellence président Bassirou Diomaye fay wax ci kanamu Nations Unies nabi Vision amul Ben Ben président bu taxaw fofu wax lu gëna am fulla lu gëna am fayda lu gëna a lu gëna jup la fa sunu président wax Joe Biden ci jëmmi boppam sax waxu fa lu ëpp njariñ ñun la fa suñ président wax merci beaucoup merci beaucoup Seydina Ousmane Sonko mu sell mi juumoo de waaye merci beaucoup son excellence président Bassirou Diomaye Diakhar Faye fii nga teg sa tànk foofu la mhm. la mu wax waxuma la dëgg ji ñor ga mu ñor ak fulla ja mu àndal waaye ñàkk yaras gi ñëw teg sa tenni sénégalais ñëpp xam ni yow mais africain nga pur et waaye amoo benn débat boo daw débat yi ñuy daw ak ay de maanaam geeru seen baag ndool gi ci àddina beeg injustice beeg violation bi nga xam ne moom lañuy def ci sart yi tënk mbooleem àddina bi ci Nations Unies yépp wax na ci wax ci fulla ak fayda ak bopp bu siggi sëggul benn yoon merci beaucoup Dieu merci alhamdulillah tay bu fekkon nga xamni son excellence dem na fofu di lak ay dar dar kan moy rus ñun patriote yi dong ñoy rus nabi vi kese waye alhamdulillah ba amul ci ñun tay fim toll ni ñepp ngi commencé di féliciter inshallah dina ci ñew legi discours bi it ci ñew ben par ben waye dal dañ doon ñew di sante ak feñal suñu mbekté ci euh, euh, manam notre saint président monsieur Bassirou Diomaye jahar fay borom xolu jamaa bi boroom xolu wurus bi yàlla na ko yàlla sàmm te boole kook wala boog te bàyyi kook jëwriñam bii Ousmane Sonko loolu donc mooy secret bi du ñu nangu kenn di ñu forcer lu góor jigéen ñu di ko samp ci suñum réew kenn ku ci ne la nga gëm mën ko ko dund fam la soobee waaye bu kenn forcer kenn kàddu yi la son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar fa yëkkati tey jii ci kanamu àddina bi fële ci Nations Unies rawatina ci kanamu Joe Biden mi nga xamee ni démb da doon défendre góor jigéen wax ni nañ leen bàyyi may leen seen afiya fu waay neex dundu la ko soob te ca min bar ba nga xam ne moom la Joe Biden taxawoon défendre loolu le fa la son excellence président Bassirou jomay Diakhar fay taxaw tey jii ci ta àllarba ji ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre 2024 dajj ko ba mu set wax ne Sénégal daal wax dëgg yàlla réew la boo xam ne dipp ba mu amee indépendance dafay défendre jukko ju rafet ak mbaax. Naby Vision. kon nag euh, du ñu nangu kenn di forcer kenn ay luwaawam ci biir réewam kenn ku ci ne nañ ko bàyyi la mu gëm ak na mu yaakaar ne lii moom mooy doxalinu réewam mu doxal ko avec teegu ak teegu bakkanam waaye ñu bana forcer kenn ci ay luwaawam. kaddu yi yu sel yi le son excellence president Bassirou Diomaye jahar fa yekati fele ci kanamu adina bi ñepp diko degge ci kanamu adina bo xamni ne daanaka ña fa teewuñ ci euh, européen yi ak américain yi lenn rek lañu gëm mom moy naka lañuy fexé ba tasaare nguur jigen ci adina bi rawatina Afrique son excellence ci fulam ak faydam ci xam gu baxa baxa bax lan moy réalité Sénégal xam li tax ñu fal ko mu taxaw lok ñom xol leen ci biiri bët rusu leen yarasu leen lok ñom ne leen ngóor jigen ci rewum senegal mom basta ta am bu ken forcé ken ay luwaawam jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf son excellence president Bassirou Diomaye Diakhar Faye jërëjëf jërëjëf jërëjëf sayidina Ousmane Sonko mu sedd Naby Vision jërëjëf Seydina Ousmane Sonko mu sell mi sukkuran jasiran lak